wax nga ci point bu am importance wax dëgg yàlla dëgg la jinne dina këpp oto waaye fa jinne moment ba muy génn di këpp oto defa naa heure boobu ñu koy dawal du ñu bari lu ci ëpp nag si ay accident ñaar rek ko jur topp sa sago wala gëmmentu ba a bàyyi volant bi ñaar yi moo ëpp ci lii def dawa topp sa sago di dawale nu mu la neexee maa yi wala nga gëmmantu ne doo joxe volant bi lii lu ci ëpp mooy indi ay accident waaye nag am na ci ay gàllaaj yoo xamante ni boo ko jëlee sange ko sa oto bi ci des nga jël ko takk ko ci volant bi yàlla suñu borom mii mu muccale mën na laa musal ci ayu accident ba doo ci jaar macha allah ci kàttanu yàlla bay sa weyu tànk sama borom kër dafa yor oto lii may wax moom jëfoo na ko ba pare ak ñeneen ak ñeneen am na gàllaaj yoo xam ne bu ñu la ko joxee ci sa valan nga koy takk am gàllaaj boo xam ne buñ la ko joxee sa oto nga koy sange ba pare ñu wax la benn sarax booy fanaanal coovan kaw valan ba ba bër set soo xëyee saraxee ko ñu wax la ki nga koy jox yàlla mii dogal mën na laa muccal ba doo aw am mukk ci àdduna ba ba ngay bàyyi dawal doo am ayu ayu accident loolu mën naa ne waaye nag danga maa laajul tamit ñetti question yi ma gën amal importance muy jigéen ju mënul am doom ndax dama see am plusieurs turandoo daaw dama doon wax set turandoo laa wax laa am tabar fakal la li ma am ci turandoo mënatuma koo lim am naa ay turandoo boo taxawee ba gëj jur wala loo jur mu tuuru wala nga wala wala munoo am doom boo ñëwee secret baa ngi fi ndax bëri naa ci turandoo tabar fakal góor goo xamante ni saa yu bëggee macha allah sëy du yëg boppam néew kàttan macha allah garabam am na fi waxuma ku ko judduwaale waxuma ko yoom aw ma seen xam-xam fajuma leen. awma ko mais ki nga xamante ni da koo dab te xeetu lekk yi jox ko ko wala rek topp bakkanam naftunam jox ko ko danaa ko danaa ko dindi ba mu xam ne dindi naa ko sekki ko ni dégg ci kàttanu yàlla kuy naan sàngara di tux yàmba di tux cigarette soo jëlee décision te muy dëgg ci yow bëgg ko bàyyi boo àndeeg sa waajur mbaa nga ñëw yow doon dong doon magum jëmm soo ñëwee ma dindi ko bu dee dangaa yor xale buy loxo loxo bi di doxantu muy sàcc boo ma indilee yére mbaa nga andi ko moom ci boppam dootul jël macha allah neexal néegu sëy nag kooku moom macha allah ci mooy sama pilifoorati ci kàttanu yàlla sëy bu dëng rek boo xam ne ma dafa dënge ci goro wala mu dënge ci njëkkër wala mu dënge ci sa jëkkër ci boppam wala mu dënge ci sa jabar sëy bu dëng ku mu daal ku la sooñee sa sëy dana neex sekkara néegu sëy moom ak yi ma mën a wax ak yi ma mënta wax yépp a ngi ci biir kër gi ku daagu ba ñëw fekk ma fi sa ajo faju ci kàttanu yàlla yooyu ay mbir la duma ko toog di ko wax mais ku waaxu ñëw ba fii ñam seet xam waaw maa la wax lii lu ma wax dama koy seddal suñu borom biral ko suñu borom te lu may wax lu ne day am seede mbaa mu tungoob seede du ma wax ci waxi kasaw kasaw ma loolu man làkkat laa yenn yi xawma ko bu ma lay wax da bu may waxee yow dama lay xool ci bët man duma tricher macha allah ci kàttanu yàlla lu ma mën mën naa ko lu ma mënul mënuma ko loolu lépp lu ma doomu aadama sant te mënuma ko dama naan la carrément mënuma ko bañ naa ko ba ci samay principe bu bopp sax soo ma nee mënoo ko waa doo ma ku ko man man la sama bopp laa xam ndax sax damay bañ sax boole laak nit nga dem naka sudul am fa ñu ne yaa ma ko boole lool boole ma kenn kenn sam bopp rek laa xam ku ma xool ba ma doy la boo ñëwee ci ñi ma xam ba pare ñi ma bëgg xam ak ñi ma xamagul ku ma ci yàlla booleel boo ñëwee ci 24 heures te ma nam ma faj sa aajo yàlla naa la gis avant vingt 24 heures wala pendant les 72 heures yàlla naa la ci gis su fekkente ni naruma laa faj yàlla bu ma la xam ba abdunay tukki lii laa wax macha allah. danga may fàttali benn télé de la place bu ma musoon jaar ndeysaan mu tombe woon ak làmba ju mag di am ak coupe d'Afrique bu mag di am tombe woon ñu laajoon ma ci sama xalaat nii nga ma ko laajee waaye la ma ca waxoon dara fayu ko ci kàttanu yàlla dama ne man soxna Awa Konté laa wax dama ne man du may wax ci ay làmb ak ay politique ak ay ay sport ak yooyu duma ci wax mais heure boo ma ci posé question la ne sama dënn ma génne ko ama ne tant équipe bi tant que équipe bi xol yi déggoowuñu xalaat yi àndul coupe du gaaw a ñëw senegal lii laa wax na xol yi ànd nañu juboo seen biir nañu déggoo entraîneur bi na leen respecté ñu respecté ko tey dox ci sart loolu buñ ko defee jëf juboo déggoo rek coupe ñëw parce que saa yu fukk dee gas rek fukk ngi suul ci affaire coupe d'Afrique loolu rekk a tax ba tey coupe bi ñëwagul fii heure bu fukk dee def pour ñu gañ am ndam fukka ngi gas di suul pour ndam bañ a ñëw te lépp boo ko dee xool ñoom ci seen biir la suñ juboo déggoo rek coupe ñëw ndax ñu am jom la ñu am ay footballeur yu am jom la ñu am bu ñu déggoo juboo rek te fukk yi bu ñuy defar yeneen fukk yi bañ a yàq ñoo jàppale leen coupe dana am ndax am nañ ñu ko mën a indi waaye ñàkk déggoo moo waral loolu amagul te tànk déggoo amul du ma sa am xooluma ko seetuma ko donc du lu may tëb rek naan waaw day am non bindoowuma noonu lu may def damay teg sama tànk ci yoon lu may def daf may leer mbaa ma xam ko walla muy lu ma gis franchement parler yoruma football bi xooluma ko niituma ko yoruma ko kon duma la mën a wax ni dañuy am ndam mais ñaanal naa leen yàlla na nu am ndam comme ni ko euh, adduna bi yëpp yaakaare ci ñoom yàlla na leen yàlla may ndam macha allah macha allah koo xamante ni xale nga danga tollu ci ndaw war a liggéey yàlla def sa bunt yëpp tëju ba foo jublu am fa yaakaar déposé fa sax da ngay mujj wëlbatiku di toog un an deux ans kenn du la woo ba nga xaddi bay demaat foofu loolu ci cadre tëju la bokk wërsëg wu tëju. mooy tax nit lu mu song mu dëgër lu mu dugg mu yàqu yooyu am nañ ay sangatam pas plus wax naa ko ci benn émission am nañ ay sangatu nit ku dëgër koo xam ne ay mbiram yépp a dëgër am nañ ay sangatam bu waaxoo ba ñëw fii ci kàttanu yàlla buñ ko ko joxee dana ubbeeku te it ma lay biral ci yàlla ni képp koo xam ne doomu aadama nga ko man ngay musulman baa nga bokk ci beneen diine moo ci bokk yam ngay góor mbaa ngay jigéen ngay mag wala ngay ndaw ngay ndaw su yàlla namul ma faj la yàlla bu ma la xam ba addunay tukki su yàlla nammee ma faj la génne sama dënn bi li ci ne tuur ko sa kaw yàlla may ñu ndam nga am nga am ndam wér wala la nga sa aajo jooju faju yàlla na ma sunu borom wana lekk yow ci vingt quatre heures ku ma faj nag yàlla bu ma la gis ba addunay tukki lii ci wàllu euh, waaw macha allah ci kàttanu yàlla bayre bi ñeenti façon la ci ñeenti façon bayre lay liggéey ñeenti xeeti bayre yu bokkul ci lay liggéey bayre tubaab muy ñi bëgg a am jëkkëru tubaab wala ñi bëgg a liggéey ak tubaab wala ñi bëgg a am jabaru tubaab walla ñi bëgg a am pataron tubaab bayre tubaab am naa ko neel benn ñaareelu bayre bi mooy ñi nga xam ne dañu bëgg mbooloo tey wut mbooloo di yëngu ci loo xam ne mbooloo moo koy doxal ñetteeli bayre bi mooy bayre nit doomu aadama ci boppam ndax am na ñoo xam ne fu ñu too taxaw ñu ne cam yàkkamti nga dem am ñoo xam ne fu ñu jóg dem ñu ne ay waay diw dem na na dellu siwaat boo ñëwul sax ñu di la laajte namm la loolu mooy bayre nit bayre boo xam ne ku la gisul di la laaj foo toog kenn du nangu nga dem looloy bayre nit ku la soofoon boo taxawee ci kanamam daal di koo saf neex ko looloy bayre nit muy ñetti bayre ñeenteeli bayre bi mooy bayre njaay yaa xam njaay boo mënti jaay moo xam lekk ba moo xam tisi ba moo xam daare ba moo xam lu mënti doon mais pour jaay dong moo ko tax a jóg ñeenti xeeti bayre yi ci la soxna Awa Konté di liggéey waaw ñeent yi laay liggéey bu ci nit bëgg rek su waaxoo ba ñëw fii secret bi suñu borom dugal na ko fi ndax moom kun fa yëkkool moom mooy dogal lépp lu may wax moom laa ci jiital sans suñu borom nit du dara lu nit am am am xam-xam moom su nanguwul lool du dem kon moom rek la jiital si kàttanu yàlla waaw muy cat bi muy bayre bi muy protection contre le mal bi muy sangat bi nga xam ne boo dëgërlee sa yëpp dëgër loolu yëpp ay xeeti sangat la mu ngi fi ba ci sangat yoo xamante ni yi sax bu dee da toog ci palaas di liggéey la ngay def nga mën ko am ku la fa fekk bëgg laa déjjati wala yow am koo xam ne da nga ko fa fekk gën ko koo mën mu bëgg nga dem am na sangat yoo xam ne buñ la ko wax du ma sax tudd tur bi ndax dama am fu ma ko tuddoon ñu bëgg ko pirate du ma ko ñaareel waaye sangat boobu buñ la ko joxee yaa xam dan la fa fekk ca place ba yaa xam dan fa fekkee dàq liggéey ka nga ko fa fekk waaye tànk ba yàlla matalul sa wërsëg foofu doo fa jóg doomu aadama mun la fa àddi jëti ma fa du liggéey duy wax matal rek dem waaye ca place ba ngay toog ba yàlla dogal nga dem sangat yooyu it am nan ko ci kàttanu yàlla hmm? man ci sunguf ak reen laay liggéey donne ko ci sama waajur teg ci alxuraanul karim jifi suñu borom bàyyi ñu ne ne nañ ko jëfandikoo lépp tegu ci yoonu siraatal mustaqim man ci alxuraan rek laay liggéey ak ci sunguf ak reen liggéeyu ma ci fétiche liggéeyu ma ci deret liggéeyuma ci xam-xam bu ñuul donte xam naa ko mais defuma ko ndax soxna laa yaay laa jaboot laa dama am yërmande te duma def lu bon duma wax lu bon duma ci dox boo jógee ci àll ba ñëw sant ma lu bon sax soo nettalee ba pare ma la naan jógal nga jóg man la rombal duma dox ci lu bon waaw waaye Serigne Touba la ak njabootam waaw sëñ Saliou laa gëm sama biir xol borom jurul ak lu bon kon duma dox si yooyu alxuraan rek ci laay liggéey waxi suñu borom ak su guf ak reen bi ma doon ci sama waajur macha allah. waaw comme ni ma nuyoo woon rek laay tàggatoo maa ngi sàkk fu ma toll rek. ci kër kilifa diine yi maa ngi leen di ñaanal di sàkku fu ma toll pour ñu ñaanal ma di ñaan Sénégal yàlla tuur fi jàmm ndax sénégalais xamul lu dul jàmm ci jàmm rek la xaj ñun xamuñu violence jàmm rek la ñu xam tey wax tamit ni euh, ah tey wax tamit ni viol yi metti na góor ñi nañu yërëm jigéen ñi tuuti nañu yërëm tuuti jigéen su matoon wal war mat na mu mate duñ ko jël di ko dénk góor ñun jigéen matuñu moo tax ñu dinu dénk góor góor ñi nanu yërëm jigéen ñi dañuy jël dinu sàcc dinu dugal ci ay oto dinu yóbbu dootu ñu gis suñu njaboot dañuy jël dinu violé dinu rey dañuy jël dinu def yoo xam ne dinu dóor ba nu yàqu dem ni façon yàq bon bon bu ne daal góor a ngi koy teg jigéen surtout viol bi nag viol abu ànd ak rey boobu nag la autorité maa ngi ciy woo autorité yëpp di ci woo kilifa diine yëpp di ci woo kilifa aada yi maa ngi ciy woo askan yëpp ku ci mën a taxaw na nga ci taxaw jigéen heure bu gaañee góor rek mbaa mu rey góor sës na waaye jigéen góor moom saa yu nammee def góor jigéen lu bon rek ma nga ca amul lu mu ciy hésité te bu leen fàtte ni yii may bëgg a lem yii jigéen moo leen fi indi jaare ko ci sunu borom wàlliwu jigéen ko jur xut bu samaan juróo jigéen a ko jur borom jamono jigéen ko jur président jigéen ko jur macha allah Richard bi jigéen ko jur ki amul dara ki jigéen ko jur ki man jigéen ko jur ki manul jigéen ko jur ñépp ci jigéen lañ jóge te ku nekk nag jur nga jigéen jóge nga ci jigéen kon nañ ñu suturaal nañ ñu sargal lii rek laa doon ëppile di ko ñaan ci askan wi autorité yi dox ci ak kilifa diine yi di wax nag seen site bi ah macha allah ci kàttanu yàlla ah ca kaw ca kanam yàlla na site boo na nekk site boo xamante ni dana dem ba kawe seen jortu ba àdduna daw di leen uti ci barki Seyduna Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla bu ngeen gis lu ngeen ragal ndax am ngeen yar am ngeen teggin di ngeen dox ndànk di ngeen wax ndànk am ngeen sutura te seen liggéey set na yàlla na leen yàlla jàppale yéen ak seen kilifa waaw ca kaw ca kanam def jubóog déggoo ci yéen yàlla musal leen ci ay ak lu ngeen ragal di gërëm nag sama borom kër waaw ndax feccu liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbaggam mustafaa Gaye mi yor samay téléphone di ko wuyu samay téléphone di ko wuyu mooy sama borom kër moo jur sama njaboot moo ma dooleel moo ma jàppale mooy sama manager ba pare mooy wuyu waa Europe di wuyu ku dul waa Europe ñépp ko xam ku ma xam-xam nga ko te it mënumaa dem sans moom ndax moo ma dooleel moo ma jàppaleel te lépp ñoo ko bokk maa ngi koy gërëm di ko sant moom itam ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ànd na kook man di ma ci jàppale ku woote téléphone daj góor bul coupé borom këru soxna Awa Konte moom nga jot ñu koy wax mustafaa gay ñii naan tonton gay ku ko ci jot melal ni Awa nga jot moom sama borom kër kii toog asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu jërëjëfe Serigne Saliou Hadimu Rasul